asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk internet yi Senfootball TV nuyu naa leen bu baax a baax jeex leen namu naa leen gëj naa def vidéo toog waxtaan te nag vidéo bu spécial la mooy vidéo bi xamante ne dama jàkkaarloo ak Aliou Cissé waxtaan ak moom laataa muy ñëw nag ci loolu euh, gaa yi dama leen remercier yéen samay internet tout d' parce que bu ma yeggee fii euh, franchement ginnaaw yàlla jàpp ngeen si bu baax baax mais dafa am nga xamante ne fu ma remercier a remercier sama grand c'est la première personne bu ma donc kooku damay am reconnaissance ba faw mom lay ñëk remercier parce que li bu amé franchement japp na ci bu baax baax moo gëm lo li ba ma nekk ci donc mooy première personne bu ma bu may gërëm di gërëm sama famille bi yëpp gërëm tamit ki xamanteni ñoo bokkoon liggéey bi ñu Moustapha ñu ànd mu doon wax français man mu daan wax wolof mais dem na ba liggéey téye ko man ma nekk ci affaire moom dama koy remercier ndax mom donte dañuy ànd mais dama daan yàgg wax ni Mohamed li man nga si sori quoi franchement bëgg nga football te passion la ci yow man nga si sori moom remercier rek sama famille ah sama papa yaay ba famille bi ba mu jeex sama mag ba sama rakk dama leen parce que sama famille dañoo nekk sama ginnaaw internet ji tamit fàttewu ma leen euh, mais remercier ñi ma àndaloon muy euh, technique ki yoroon côté technique bi xam nga sama copain la Zala Moussa ziar naa la kontaan naa si li ma jàppale ànd ak keneen ku xamante ne journée ma lañ wax fépp may def interview moom donc ñooñu dama leen remercier du mu fàtte tamit am na ko xamante ne voilà man borom jàmm laa koy wax xam wala bëri jàmm plutôt muy Matar Matar à chaque fois aussi moom daan montage yenn vidéo donc à chaque jàppale ki may jeexalee nag c'est Papis ku xamante ne dafa spécial ci mu génn àdduna ku xamante ne franchement euh, doon wax ne man ak yow ba tey donc kooku aussi tamit amoo fayam li ma koy ñaanal rek yàlla ko àddina am na ay vidéo yu xamante ay live moo si chaîne bi Senfootball TV mu doon wax à chaque fois jàppale leen Mouhamed aussi tamit suñuy waxtaan yëpp whatsapp dama doon wax ne Mouhamed mën nga àgg fa sori te gëm naa ne Aliou Cissé xam na la mu loolu dafa amoon gëm-gëm boobu euh, de passage dinaa nuyu jabaram xam nga benn doom bi mu fi am muy Mouhamed nekk suñu turandoo xam nga bu ñu leen fàtte ñoo ngi maa ngi seen numéro dinaa waxtaan ak ñoom donc parce que spécial la yi nag léegi ñu si si thème bi léegi mooy que dama demoon conférence de presse bi ma demee dama woon a poser question mais comme que dama ñëw toog xool affaire bi ni muy demee journaliste na lañu xam ma moo toog seetaan quoi tok na setan gay ko ku nekk posé na seen question xool naa liste bi xam par rapport ak gay yi ni ñuy posé question après nak euh ki ma àndaloon comme ki côté technique bi ma ne photo ak Aliou Cissé non bàyyi ma ñibbi rek non non gay photo ak moom rek ma dem pour photo ak Aliou Cissé ne ma voilà wa yow rek laa doon wër Mouhamed seen football TV man ma ti sax ma ne ko ah bon mu yow yow yaay monsieur Bina Sino yow pour yow Bina Sino yëpp lañu wara wo a quoi donc euh, franchement man boobu ni ma gisee woon ak Aliou ak Aliou Cissé nu mu mel aussi franchement c'est deux personnes nekk nit koo xamante ne personnellement dafa baax quoi parce que loolu bu neexoon lu ci fekk bu neexoon mu xam ma bàyyi ma ci biir xam mais deful loolu ñu waxtaanaa ah, ñu waxtaanee si biir suñu yi wax naa sama xalaat mais loolu nag mu ngay jënd pour si analyse bi quoi mais juste naa leen si tënk si dossier ñu Pape euh, ñu waxtaan wax nañu peut-être am Amadou wax nañu aussi euh, latéral droit Ibrahima Mbaye pourquoi ça ak système bi yooyu yëpp jot nañ si waxtaan si temps bu ndaw quoi moom tamit mu jox ma temps ñu ku baax ne ma maa lay sitaan donc loolu nag taxul du nga que am na benn genre snap bu ma def ak ñoom ma nekk mu ne bi fekkee da jaar da koñ donc loolu du ma traité objectivité bi nekk ci man ma ma ma bàyyi ko franchement mais c'est juste pour tënkal leen vidéo parce que peut-être dina am problème son tuuti da ngeen di parce que conférence dafa tasoon et tout donc peut doo leen xaw a dégg leen son yi mais jàppale ne wax Pape Gueye waxtaan

Le parlez dans cette émission, vous n'allez avec un pas dit. Vous jouez avec ça dit Non, il n'a pas dit. Sérieusement, il n'a pas dit. Il l'a dit. Il l'a dit. Allez, ah c'est un beau technicien. Je l'ai appelé Hein Est-ce que tu as dit que je l'ai appelé Ça, ça c'est après. Ah, mais là, avec clés. On peut parler de surface. Entre la communication de l'extérieur et de l'intérieur, Moi, les arguments qu'il m'a donnés, c'est les arguments que j'ai beaucoup Donc, je ne peux pas yow xam nga doole tey da fekk nga rek nga woo tenté une fois rek. mais woo naa ko booy dëgg lu ma loo. woo nga man ku ma loo tuuti quoi. non c'est que aussi équipe bi dañ ko war a man personnellement man ku ma yow xam nga ne Sénégal am na ay talent. yéen tamit il faut que nga def def déplacement yow. waaw tey waxtaan rek def nga déplacement yow.

de continuer dans la vérité. Voilà. D'être journaliste, de d'être Pas des l'autre a dit, l'autre a dit, mais que tu as cherché la source. Voilà, mais nous les encourager. Alors, bonne affaire. la may équipe tamit mooy. waaw mais xam nga dañoo am tamit pour dugg ci équipe Comment va

léegi euh, euh, l'a